tey comme euh, présente trois 3S euh, Aïssatou Bey maa ngi représente trois s en fait 3S euh, xëyu rek juddu parce que idée bi moo ñu duggee parce que ñu nettoyage nañu commencé dañu doon nettoyé kër yi nettoyé avion yi ci armée de l'air yooyu mais dañu gisoon tout le temps bu demee ci kër yi hygiène bi war amuñu produit bu ñu ko mën a defal par la suite tout le temps ñuy dem di dem ñu ne pourquoi pas ñu suñu bopp ñu créer suñu produit bopp produit boo xam ne ñu ñëw ko moom nga xam ne di par rapport suñu réalité euh, terrain parce que des fois da ngay dem ci euh, jënd produit jàmbur mais produit bi ak réalité dëkk bi du doon benn parce que la plupart nit ñi bu ñu jënd indi produit Europe ak yooyu produit bi seen ñoom seen degré euh, d'hygiène ak ñu suñu bos du benn réalité yi du benn objectif bi mooy ñu rayante ba hygiène bi war ci kër yi ci école yi ci poste de santé yi en fait ci dëkk bi ñu rayante ba tey jii prix boo am sa kër day set. prix boo ah. Euh, dañu defar benn produit bu tudd Topsol Topsol bañ koo defaree def na léegi dix ans mais dañ ko doon defar pour ñun ñu koy utiliser suñu bopp. mais léegi dañ dem benn instant client yi ci boppam tout le temps da ngay nettoyer kenn ba pare mu ne la léegi seen produit foo leen koy jëlee léegi ñoom ñu au fait ñoom ñoo ñu poussé pour ñuy jaay produit mais tey dañ koy dañ koy jaay jaayuñu ko parce que prix bu forfaitaire na ñuy jël pour nit ñi nga xam ne ñëpp dañ ci am accès nga xam ne tey loo am mun nga am produit sa kër set parce que bu ñu waxee côté hygiène tey jii. Euh, yenn microbe yi yenn feebar yi yenn kii yi yooyu yëpp si si saleté bi lay jóge léegi produit bi ñuy defar ñun moom day rey microbe yi ak quatre vingt di euh, intervenir fan ak fan ak euh, Sénégal. on a fait les quatorze régions quatorze régions yi def nañ ko def nañ quarante-cinq départements yëpp ci suñu fond ci suñu moyen wu bopp parce que on s'est dit ni ay jeunes nañ dañu gëm suñu dëkk. ñun demuñu pour uti lenn fenn parce que gëm nañ ni richesse bi ñu am fii bu ñu ko exploité nañ def lu extraordinaire damay lancer waale jeunesse bi tey ñoom nañu gëm seen bopp parce que tey li ngay uti feneen mu ngi fii gars yi bu ñu sonnee dañuy ñëwaat kon nañu rayante gëm seen bopp xam ne potentiel bi am Afrique amatul Europe amatul Amérique. mais euh, mm-hmm. euh, parce que euh, boo gisee 14 régions yi ñu def ko sax de passage dañuy remercier Intra Health di remercier waa la nationale parce que dañu nekkoon ci benn programme bu tudd yegsi naa programme bi ñun dañ daan dem ci poste de santé yi pour distribuer ay médicaments. léegi boo demee ci poste de santé yi boo xoolee état wu euh, local bi état wu lieu bi on s'est dit pourquoi pas ñun suñu bopp ñu teg suñu programme bopp gëm ko te am nañ njort bu rafet dina dem.